الطيبين الطاهرين ورد الله الخالد عن جميع المؤمنين أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk jullit yi gannaaw bi nu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla subhanahu wa ci yërmandeem ci mbaaxam ci kattanam yàlla na ci yàlla jaar bo képp koo xam ni danga tëdd yàlla na yàlla saafara la waaye képp koo xam ne dem nga barzaq yàlla na la la yàlla yërëm ñu di ziyaar mboolem imaam yi jiital ci nag imaamu ratib bi nuyu ko ziyaar ko ak ñi mu àndal di ko ñaanal wér ba ànd ak gudd fan ak tawfiix ñaanal ko mboolem magu jàkk ji président bi ak ñi topp ci gannaawam ñuy jaal ñi nga xam ne ñoo fi jot a génn àddina ñépp ñaan yàlla subhanahu wataala taala na leen yàlla yërëm ndax umma bi ñàkk na ay mag yu rëy ci diir bu gàtt ndax diggante bu gàtt boo fi ñàkkee tafsir saaxo ñàkk fi Cheikh Tidiane Seck ñàkk fi Papa Malick Sy ñàkk fi Ahmed Bamba Ndiaye dafe naa ne kon loolu perte bu rëy la ci umma yépp waaye rawatina sunu réew mbokk yi loolu nag waroon na nekk waar pour ñun ñu dëkkee réew mi waaye ndax eski waaro nañ ci loolu réponse bi mooy déedéet mbokk yi waaro wuñ ci crise bi nga xam ni walla nattu yi nga xam ne yàlla mu ñu koy teg waaye mbokk yi lu tax duñu waaru ba tey bu ñu seetloo àddina si ni mu tëddee ñu ngi coow feebar bi waaye feebar bi ñaar la mën a doon mbugal ak nattu covid 19 bi ñaar la mën a doon dafa war a nekk waar ñu dellu sunu boroom te tuub bu ñu ko deful muy mbugal sunu kaw te yàlla ci boppam waxoon na ne am na loo xam ne su amee ci suuf si ñun ñi ko dëkkee ñoo ko def xam nga alquran moo wax ni zahara alfasaadu fi lbarri walbahri bi ma kasabat aydi nnaas maanaam àddina si boo demee ci jéeri ji yàqu na boo demee ci géej gi yàqu na mu ne waaye nag loolu yéen yéen a ko def bi ma kadaba kasabat ay dinaas beneen bi ci des mooy mu wax ne wa ma asaabakum min musibatin fa bi ma kasabat aydikum wa yaafu an kathirin musiba bu leen dalee yéen a ko def ba musiba dal leen mbokk yi nañu xool àddina si muy réew jullit yeeg yu dul jullit certes nag am na ñoo xam ni boo waxee ñu ne virus bi ay nit a ko defar nit ñu ko defar ñooñu lan moo tax ñu defar ko ma ne waaye bu fekkee ne nit a ko defar yàlla dugal na ci loxoom ndax bu fekkee ne virus bi dañu wax ne nit moo ko defar mais yàlla dugal na ci loxoom lu tax mooy ñanga xam ne lañu wax ne ñoo ko defar foofa la gën a métti kon est nit a ko defar ndax nag wa maa yaalamu junuuda rabbik illa huwa yàlla ci boppam dafa ay ay soldaam soldat yoo xam ne yàlla rekk ko xam soldat yooyu nag bari nañ lool xam nga lu ñuy xaar ku tooñ nit ku tooñ nit rek la soldat yooyu di xaar beneen bi ci des bi nga xamee ni feebar bi am na ci àdduna si coow li bari ci lool ñii naan du ñëw Afrique ndax dafa tàng <laughs> ma ne dañ xamul yàlla rek waaye yàlla fexe ba mu lëmbe àddina si yépp alxuraan waxoon na ko bu yàgg yónent bi waxoon na ko bu yàgg xool nga dinañ ci ñëw bi mu amee ba yegg si suñu réew mag moo ci gis ñaan na ba sonn ñii toog nañ woote ay ñaan virus bi nekk ci li mu nekk rek te wiris bi moom nit rek lay wër nit nit uutul nangam nga am nga nangam am nga nangam yoonam nekku ci moom daal na nga nekk nit di noyyi rek moo tax ma wax ne wiris bi feek ñi ko yàlla yónni ci ñoom ne nañ leen yóbbu feek ñooñu jeexul moom du dem waaleykum salaam ya cheikh waaleykum salaam wa rahmatullah feek feek feek ñi mu war a yóbbu jeexul virus bi du fi jóge beneen bi ci des mooy lan moo waral yàlla teg ñu lim ñu teg loolu lañ war a seet xool nga inna zunuba wal fawahisha wal munkaraat wal xabaa'is wal razaa'il wal jaraa'im wal dulm wal udwaan wal bagyi wal fisq wal fujuur wal mujaaharatu biha tu'athiru ala al ibaadi wa ala al bilaadi wa tasababa lahum bi uquubaatin شتى وآلام تزداد وتتتابع تارة تتعلق بالأمن وتارة تتعلق بالخوف وتارة تتعلق بالاقتتال وتارة بالاقتصاد وتارة بالفقر والجوع والبطالة وتارة تتعلق بالصحة wal amraadi al mutanawia dama wax ne bàkkaar ak def lu ñaaw def lu bon def lépp loo xam ne mooy mooy musiba waaye ak tooñ ak noono ak mbeewte ak caacaay ak kàccoor bu ñu ko ba pare wëlbati di ko fésal mu ne loolu ñuy def dafay am jeexit ci jaamu yàlla yi waaye dafa am jeexit ci réew ma mbokk yi li ma wax yépp nag lu ñuy dund la du lu ñuy làmb loolu moonu bu amee lan mooy war mu ne fa tata sababa dafay cause lay doon ci lan ci ay méttit yu baree bëri bi uqubaatin shatta ci ay mbugal yoo xam ne wuute na ay mbugal ndax am na yoo xam ni bu la ko lislaam waxee nga lank yàlla moom am na moyen bu muy jaar ba far force nga def ko xam nga joxe loxo joxe loxo xam nga góor xaraam na mutlaqan muy jox jigéen boo xam ni dama ni jigéen góor jox jigéen loxo sharia nanguwu ko bu fekkee ne jigéen ja du sa doom du sa yaay du sa bajjan du sa tànta du sa maam yow nga ne déedéet di ko def yàlla xëy rek ne la waxuma sax jigéen waaye góor sax bu ko joxeti bu ko joxeti loxo te ñàkk a jox loxo gi mooy yow wóoluwuloo ko moom wóoluwu la ñàkk a joxe loxo yépp mooy yow man mi bañ a joxe loxo wóoluwuma ki may jox loxo moom mi tamit wóoluwuma ndax kenn ku nekk dafa jàpp ne bu ma ko joxee fekk waa ji am na ko dinaa ko jël kon xam nga ne bàyyi kii nga ko bàyyi yàlla taxul ragal dee dong moo tax walla ragal feebar bi te nag feebar du rey nit xool nga yàlla dafa am benn benn benn benn benn malaaka bu tudd eh, eh, bu li ñu tudde malakal mawti nga xam ni képp kuy génne àddina ma la yóbbu waaye dafa ñaanoon borom bi ne ko nang ma defal loo xam ni danaa jël nit ñi yóbbu leen te kenn du tudd yàlla may ko loolu moo tax ku génne àddina ku ne malakal mawti moo yóbbu sa ruux waaye kenn du ko tudd sabab lay def rek ñu ne lu ko rey ñu ne corona ba moo ko rey ñu ko rey sibiru moo ko rey fekk na sibiru bi dafa jaar rek mais malakal mawti moo yóbbu ruux gi kon mbokk yi loolu moo tax am na benn boroom xam-xam bu ci def benn benn discours bu am solo tuddee ko shukran yaa corona maanaam dafay remercier corona maanaam li nga xam ne noonu la jullit waroon dundee yépp te lankoon ko corona ñëw imposé ko ko solidarité lislaam jàngal na ko bu yàgg dimbale nit l'islam jàngale na ko bu yàgg waaye ñu du ko bàyyi rek waaye xëy xëy rek mu sotti suñu kaw loo xam ne kenn xamul lan la waaye est-ce que dinañ ci waaroo loolu mooy laaj bi su boobaa nag mbugal yi bokk na ci li ñu tuddee ay métit yu bari feebar bi ci la bokk beneen bi ci des mooy wa tataxallaqu taaratan bil amni maanaam mbugal bi dina aju ci mbugal moomu li ñuy tuddee sécurité insécurité bi am ci àddina si kenn xamul lan la ñaa beneen bi ci na wa tataallaqu bil xawfi ragal te loolu yëpp dana ñëw ci aaya ba ca kanam beneen bi ci wa tataallaqu bil iqtitaal reyante bu dul jeex wa taaratan bil iqtisaad li ñu tuddee crise économique ca ci la ñu jëm beneen bi ci des wa taaratan bil faqri ñàkk bu kenn xamul nu mu toll wal juuci xiif wal bitaala somage wa taaratan tataxallaqu bi sixati ak wér-gu-yaram li ci aju wal amraad al mutanawia ak feebar yu bari yoo xam ne kenn xamul ñaata feebar moo am léegi feebar yi am ci àddina si rawatina sunu réew mag ñi nga xam ne ñoo paase woon xamuñu feebar yooyu waaye waxuma sax mag ñi la doon dal waaye léegi ndaw ñi ñooy am feebar yooyu kon mbir mi am na fu mu paanee ñun ñoo ko war a xool alquran waxoon na ne wala nabluwannakum bi cheyin min al xawfi wal juuci wa naqsin min al amwali wal anfusi wa samaraat waaye wa bashiri sabirin alladina isa asaabahum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla dafa wax ne dinaa leen natt natt xam nga nag ñu ne natt dañuy xool sa natt la ci sa ngëm yàlla fan la toll yàlla ne dinaa leen nattu ci insécurité loolu kenn werantewul ko taay taay couvre-feu bi nga xam ne boo demoon seeti oustaz boo julee balaa timis nga ne naa gaaw parce que bala ñu may yóbbu loolu xafu la wal gars yi commencé di jaaxle parce que dem nañ ba nit ñu commencé ne xiif bi dina fi am wa naqsin min am amwal crise économique wal anfusi mortalité yi nit ñuy dee kenn xamul liy dee ci àddina si léegi wa samaraat mbay mi maara day taali doxatul mu ne nag yàlla lam ca wax mooy waaye nag wa bashiri sabirin waaye ne na na nga bégal ñi nga xam ne ñooy assaabiruun muñkat yi ñooy ñan mu ne alladina isa asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun su leen musee ba dalee seen kaw dañu wax ne ñun daal yàlla moo ñu fi indi waaye ci ñoom ci yàlla la ñuy delluwaat waaye xool nga aaya boobu mbokk yi bala ñu koy wax rek ñu ñëw tàggale nit <laughs> mel ni boo waxee aaya bi yow doo bokk ci kiy topp ci waa ji sénégalais boo koy wax ne diw génn na àddina mu ne inna lillahi wa inna ilayhi et puis nam koy waxee sax dangay xam ne kii dafa jëpp ne bu waxee affaire bi moo koy protéger mbokk yi loolu alquran waxoon na ko beneen bi ci des wa taaratan bil furqati séparation mais lii nii ci jàkk ji nga xam ni eh, lii nii ci jàkk jàkk nii la war doxe nañu xoolaat yëf yi xoolal yonent bi demoon na ji wax xadis ni nee na bu ñu demee boo sàppe yi ni mu war a jubee nga xam ne sa mbagg dafay tafu ci mbaggu moroomam nee na bu ñu ba demee ba loolu amatul rek sàpp yi dëng séparation am seen diggante nee na danaa do dootu leen nekk benn dootu leen juboo <laughs> waaye mbokk yi loolu ci la nekk léegi boo ñëwee ci jàkka ji kii kii taxaw fee kee taxaw fee kee taxaw fii loolu lu ko waral ragal feebar bi ragal feebar bi coow lu bari nag judd na ci bi affaire yi amee xool nga yàlla kenn du ko jaamu ci eh, sentiment xool nga yonent bi li mu jàngale ki ñëw di ko appliquer rekk waay fexeel ba bu ko wax dara kenn ku nekk nag war nga ne lii laa gëm jàpp ko waaye bu dàq keneen ki li muy def man dama ci teel a wax sunu jàkka ja fële Bagdad booba sax daanaka bu fekkee ne kaa am na fi bariwul ma avertir leen ne bés ne am na loo xam ne bu continuer sharia maye nañu tëj jàkka yi am na ñoo xam ne bi ñu déggee baat boobu dañoo jaaxle parce que naa Muhammad lu ne jàngale na ko xool nga euh, li ñuy tuddee nii mbas am na saxaaba yoo xam ne mbas moo leen yóbbu ba yëf ya amee Omar ibnul Xattaab waree dem Sham mu am information bu wone ne am na feebar bu fa nekk mu ne kon nañ wàññeeku am ñu wax ne ñoom xam nga fanatisme rek gëm nga ëpp mu ne noonu lu gë duñu wëññeeku ñu ne ko waaw yow lee léegi dangay daw dogalu yàlla mu ne ko waaw damay daw dogalu yàlla dem ci dogalu yàlla ndax Saam bi ñu jëm yàlla moo fa dogal mbas mi nekk fa waaye fi ñu jóge nag yàlla moo fa dogal mbas ma nekku fa kon damay daw ci dogalu yàlla dem ci dogalu yàlla beneen bi ci des mooy li ñu waxoon ne rassemblement bi nañ ko tere mais yonent bi jàngale na ko dañ wax ne boo doon def ab taal ne na liy tax taal bi gën a yàññ mooy matt yi waaye matt yi boo leen écarté est-ce que dina yànjati ah. ñu ne kon bu ñu moytee loolu nañu écarté nit ñi ñu bañ a daje waaye loolu dañ ko yéex a def beneen bi ci des mooy ba muy doog a am bu ñu defoon li lislaam wax Sénégal affaire bi du fi yegg si waaye nañ ma baal nag léeg-léeg ma tooñ suñu mbokk politiciens yi léeg-léeg ñu def yoo xam ni bu ñu toogoon xalaat du ñu ko wax parce que bi yëf yi amee président moom it na mu waxee euh, waru doon waxee noonu parce que dafa ni mënuñ leen a indi amuñ mooy indi leen ah kay moom kay li mu waroon def mooy nañ leen fa bàyyi ndax nag loolu la lislaam jàngale comme ñoom ñu nga fa waruñoo génne foofu xool nga ñi nga xam ne gëmuñoon li yonent bi wax dem jëli seeni nit ñoo ci gën a sonn Espagne France Italie États-Unis euh, Iran ñoo ñu demoon jëli seen nit ñoo gën a mortalité yi fa la gën a bëri ak Brésil mais xool nga li yonent bi waxoon ca saasa ba ñu tëjoon frontière terrestre ak aérienne yëpp ñu tëj ko ba kenn dootu jóge fale di ñëw xoolal loolu bu amul corona bu fekkee ne virus la boo xam ne nit lay topp kon du fi yegg si waaye ba mu amee rek gaa yi kon noo waru koo def dañu war a delli suñu nit gaa yi la it naan nañ ñëw mais loolu du islaam mbokk yi nañuy seetaat bu baax yëf yi beneen bi des mooy corona bi war nañ ci jàngee lu bari xool nga nañu delloowaat sunu bopp ci sunu borom. kenn ku nekk yow yaay dugg sa biir néeg def sa prise de conscience ne mën na am lii de sama bàkkaar moo tax yàlla wàcce nañu ko waaye duñ ko def xool nga dañu wax ni yàlla du wàcce balaa lu dul ci bàkkaar bàkkaar bu bari mooy tax yàlla wàcce balaa waaye du ko dindi yi tamit dindi ko fi lu dul ci tuub tuub nag du duñ ko defee ci jàkk ji kenn ku nekk yaay toog sa biir néeg ne sama boroom de am na lu ma la def te waruma la ko def nga tuub sa boroom jéggal la ko keneen def noonu keneen def noonu waaye kenn ku nekk rek da toog fële ne diw mooy tax nangam xool nga lii waral nag lii yonent bi waxoon nañu ko feebar bi xool nga seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam Omar Abdullah ibnu Omar moo netteel hadis bi dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi dafa ñëw jàkkaarloo ñoom bés aqbala alayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent bi dafa ñëw jàkkaarloog ñun ne yaa machara al mu ne een yéen ñi nga xam ne yooyu naay muhaajiruun yi mu ne xamsun nee na juróom a ngi ni yoo xam ne isa ubtulaytum bihinna bu ngeen leen ko nattoo te kat mu teg ca wa aoudu billahi an tudrikuhunna maa ngi musli ci yàlla loolu mu bañ a yegsi ci yéen mu ne yooyu lan la mu ne lam tasharil fahisha fii qawmin qattun xatta yuclinu biha ila faasha fihim taaunu wal awjaau allati lam takun madat fi atlafihim na madaw dafa wax ni juróoma ngi ni yoo xam ne bu ñu demee ba ñu ba mu wàcc ci yéen te maa ngi muslu ngeen bañ a yegg boo affaire bi yegg si ci yéen waaye waaye li yonent bi waxoon yegg si na mu ne bi ci jiitu mooy mu ne ay nit bu ñu demee ba ak caay-caay dañ koy fësal bu ñu demee ba mooy yàlla dañ koy fësal nee na dinañ dem bo li ñuy tuddee feebar boo xam ni xamuñ ko xamuñ ko woon ñoom mag ña nga xam ne ñoo jiitu woon xamuñ woon feebar yooyu yàlla dina leen wàcceel ay feebar yoo xam ne mag ña jiitu woon xamuñ feebar yooyu mais mag ña est-ce que mag ña jiitu woon es ce que xamoon nañ lan mooy corona est-ce que xamoon nañ lan mooy sida te feebar yooyu gën a garaaw ci àddina si est-ce que xamoon nañ corona mais non seulement caay-caay euh, dañ koy fësal waaye di ko tiitaroo wax lu bon dañ koy fësal di ko tiitaroo ci réew bu mel ni Sénégal ci réew moo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent yi ay jullit lañ ñeneen ñi ah, ñu gëm lañ te mooy chrétien yi waaw lu tax parce que fësal gi bu ñu demee boo njaaloo nga mën a jox jigéen autorisation ne demal jaay sa bopp jox la autorisation ne la mën ngeen jaay sa bopp loolu fësal la walla du fësal dama dama dem bo média yi média yi lu bon lu nekk dañ koy génne ci télévision Sénégal yi néew na boog yu ko jul def am na ci ay exception nag waaye ay émission yoo xam ne xoolal émission diine yi ñoo gën a tuuti temps bi ñuy am waaye émission caaxaan yi moom ay waxtu yu bari lañuy am dajale ay xale yu jigéen ak ay xale yu góor di leen jàngal fecc seen petit gàlle moo tax ba fa waa ji waajooju ko organisoon ba mu nekk fi di rëy lamin di wax ba ñuy jéng taalibe waxoon naa ko fi ñuy kaas lu tax waruñu jéng taalibe yi ma ne waaye bu fekkee ne sëriñ bi daay jëng taalibe yi waaye yow xelu xale yi ngay jéng yow te moo gën a garaaw jéng xelu xale yi moo gën a garaaw jéng xale tànk xale bi beneen bi ci ma ne leen xool nga li fi baax ci dëkk bi yëpp doomu daara yi ñoo ko fi def dama ne wëral ci économie bi ci Sénégal yi gën a rëy ay doomu daara ñoo ko def parce que doomu daara yi dañu am métier doomu daara boo fi gis benn muy bay wala muy commerce bay wala muy commerce wala muy napp waaye ñi nga xam ne amuñu métier coow li coow li ñooma te Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum yal na yàlla yokk leeram dafa waxoon ne politique du métier ku ko def métier di ko dundee nee na doo góor nee na diine du métier ku ko def diine du ku ko def métier di ko dundee doo góor du xam nga toog sa benn place rek ne da ngay ñaan <laughs> astaghfirullah yow jàngelu wuloo yow yaruloo yow daal sa course nga toog ne da ngay ñaanalaate maanaam ñaan bi mooy métier mi c'est contradictoire c'est-à-dire mënoo tudd baatu ñaan ba pare bu ko def métier ki ngay ñaan bu lankee nag jar na kon yonent bi waxoon na boobu beneen bi ci des mooy mu wax ne walam yanqudul mikyaala wal mizaana ila uqzu bi sinina wa shiddati almaunati wa jawru sultaani alayhim mu wax ni bu ngeen demee boo tricheurs yi bari ci nattukaay yi ak peesekaay yi kii jaay bu fekkee dafa war a natt pot bi muy nattee dana fexe ba noral pot bi noral pot bi def ci biir pot bi ay këyit am na fi def ci biir pot bi ay këyit boo ñëwee di jënd ci ceeb walla dugub walla gerte mu jël pot boobu nattal la ci waaye boo ñëwee di ko jaay si yow mu jël beneen pot bu bokkul ak boobu natt ci pour jaay la pour jënd ko foo way xool nga way lun lil mutaffifina looloo tax mu ñëw alxichu fil mizan wal xichu fil mikyal te mooy booy natt tri ko ko bu fekkee ne balance la xam nga ni ñuy def dafay am benn acier <laughs> nit a mën a tricher da xoolal boo jëlee balance bi dangay am benn assiette bu xaw a am poids tuuti taf ko ci ci benn plateau bi weñ bi mu tafu ci nga teg ko ne boo amee kuy ñëw di jënd si da ngay jël boobu teg ko xoolal booy def tuuti rek affaire bi daanu waaye léeg-léeg yow miy jënd si ngay nax waa ji parce que dalay lay na pesel fekkee ne eh, jaaykat bu mel ni Oustaz Adama la muy natt affaire bi mu war a balancer wala mu nga xam ne day war a équilibrer nga ne ko affaire bi baaxul parce que daanuwul nañu bàyyi xel ne képp ku lay jaay di ko peser saa yu daanoo rek lekk nga loo xam ne riba te ñun loolu la ñuy def non non daanuwul bu ko defee moom it mu del teg mu ne rang fekk nga lekk nga loo moomul parce que warul daanu dafa war a équilibré parce que kilo kilo la war a doon waaye bu defee nii rek nekkatul kilo loolu yonent bi nee na bu ñu demee ba loolu am sécheresse dana fi bëri xam nga at yi passé nit ñi dañuy dem ba jaaxle commencé di baaw naan sécheresse boo demee ci àll bi xam ne àll bi yëpp garab yaa ngi dee Sahara moo fi mujj nekk beneen bi ci des mooy mu waxu ne. walam yamnau zakata amwalihim ila muniu alqatara min alsama wa lawla albahaimu lam yumtiru mu ne bu ñu demee ba azaka <laughs> boobu nee na buñ demee ba dootuñ génne azaka nee na toq taw nee na dootul wàcc bu duloon woon bàyyi may yàlla nee na dootul wàcc ndox waaye ma ne Sénégal ñaata milliardaire ñoo fi am ah bëri nañ de milliard ñaata la ci xaalis ay milliard ñaata kilomètre la fekk Thiès boo doon boo doon teglante ka kii bi yi ay kilomètre la milliard ay kilomètre la nga am ci nag ay mais kii am milliard bu génnee asaka xale bu góor bi ne ci koñ bi am métier te amul moyen mën nga ko jàppale ba mu liggéey et malheureusement loolu amu fi da ngay génne eh, am ñoo xam ne non seulement ñoom du ñu génne asaka ba pare di maye parce que ñoom li ñuy def parce que eh, asaka bi yàlla nee na moom moo ko moom jël ko nga joxe ko xool nga boo ko joxul yàlla dina am feneen fu mu ko jëlee fu mu ko génnee ci yow bu la neexee bu la naqaree xam nga léeg-léeg nga dégg ñu ne magasin yaa ngay lakk. foofu waroon nañ fa toog taa taxaw tuuti ne lu ko lakk boo ko joxewul rek yàlla am lu mu def ba jëlee ko foofu walla nga bañ a joxe azaka sa alal yàlla xëy rek am lu mu la teg nga sonn ba bugga dee boo watul xaalis bi génn wàll yi da nga koy fajoo kon yonent bi sa alayhi wa waxoon na ni buñ demee ba azaka génneetuñ ko nee na danañ toll foo xam ni sécheresse yàlla dootul wàcce taw nee na buy dem booy taw sax nee na bàyyi may mooy tax muy taw kon nañu gërëm fas yeeg xar yi de bu dooloon ñoom ndox mu dootul wàcc maa la ko wax beneen bi ci def walam yanqudu ahadallahi wa ahda rasulihi ila sallata allahu alayhim aduwan min gayrihim fa aqadu fa ma fi aydihim wa ma lam yaxkum aimatuhum aimatuhum bi waaye kitaabillahi wa yataxayaru mimma unsila ila jaala allahu baasuhum baynahum yonent bi wax nii bu ñu demee ba li doxoon sunu diggante ak sunu borom ñu dagg ko li dox sunu diggante ak sunu seydu prophète ñu dagg ko mais loolu moo am neexula wax nag taxawoon naa fii wala campénal sunu jumaa ja ma amoon na fii ñu fiy woote ne yàlla ay yónnent lan ananu amoon na bu jigéen de foog na waaw ma ñoom xanaa xanaa ñoom xamuñ corona bi amuñ ci pexe xoolal ba corona bi ñëwee ba tey déggatoo kenn ku génn nii di wax loolu kenn waxatu ci yónnent yi <laughs> astaghfirullah ñooñu doon woote ak yónnent yëpp déggatoo ci kenn kon xam nga ne ci ay caaxaan lañ nekkoon beneen bi ci des mooy bu ñu demee bu ay nit nañ ma jégal nag léeg-léeg nga wax mu am ñu ñuy tuuse xool nga nun dañuy dem ba suñu sëriñ si ñu teg leen palaasu yàlla jaaduwul ab sëriñ mulu mu rëy rëy rëy mëtul sax mënul taxaw garaatu garaatu saxaaba waxatuma la ab prophète waxatuma la yàlla nga taxaw ci kanam nit di jël sa sëriñ di ko teg ci kanamu yàlla nga foog ne yàlla du du na ñëpp mooy buy sanctionné nag ñëpp laa koy maasale loolu jaaduwul te sunu sëriñ si buñ dellu siwaatoon xam ne loolu jaaduwul jël sëriñ yi bugg leen a def ay mburi làmb kenn ku nekk nga am sa sa mm, foo féete man nag sañ naa ko wax ndax am naa lu ma gëm ci ñoom loolu de jar naa seetaan sunu digganteek sunu borom moo ñu jàmm ko bañ ko bokkaaleeg lenn bu ñu demee nag boo am émission yoo xam ne émission gisaane te dafa xaram <laughs> gisaane à la télé wala gisaane ci ci en ligne dama dem ba ñu métier lañ ko def gars yi di leen rang te boo demee ci gisaanekat mu wax la nga gëm ko ñeen fukki fan loo jàmm yàlla du yéeg ñeent fukki fan loo jàmm yàlla du yëg kon bu ko defee ma tëj beneen bi ci suñu diggante ak suñu sayduna muhammad suñu yonent mooy lan mooy ñu am cofeel ci moom waaye dem nañ ba cofeelu li ma wax léegi nit danga bëgg nit bàyyi yonent bi fii ngay gis ku bëgg nit buy wax ngay daanu bëgg benn wéykat buy wax ngay daanu te yonent bi moo wax ne al mar'u ma'a man ahabba nee na nit ku nekk ki nga bëgg fii yowmal qiyaam yéenay ànd waaye booy bëgg bëggal ku ku ko jar waaye mbëru làmb bi nga bëgg ko ba mu jaral la lu ne football bi nga bëgg ko mu jaral la lu nekk te daanaka bëgg sa yaay sax dañ ko bàyyi sa pap booboo war a jiitu ndax wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa waaye day ihsaanan nga bàyyi fi sa yaay gën a gëm sëriñ bi nga bàyyi fi sa baay gën a gëm sëriñ bi bàyyi fi sa baay amara di tal bàyyi fi yonent bi gën a gëm ñooñu te yàlla ba muy wax dafa tudd boppam ba pare indi woy jur keneen kuy doog a ñëw doog a ñëw yonent bi nee na bu ñu demee ba loolu am nee na danaa indi ay noon yoo xam ni du ñu dëkk foofu sax bu ñu ñëwee nag li ngeen am yëpp ñu yóbbu ko ana tubaab yi ak sunu ressources yi fi nekk ñu ngi koy yóbbu bu ko defee nag bu ñu demee ba ci biir nag li yàlla wàcce ñuy tànn li ñu ci neex rek la ca des ñu bàyyi ko loolu moo am acte bu ñu demee bo bu ñu waxee nga ne waaw yàlla wax na ko mais ku rey nit ñu rey la waaw waxtu wi jot na man ñu bàyyi xel ne kenn ku nekk yaa war a def sa prise de conscience ñaan yàlla lii ñu yàlla teg ñu tuub nag kenn ku nekk tuub jéggalu sa bàkkaar yàlla jéggal la say bàkkaar bu boobaa nag yàlla mën nañu ko dindil dama ne yàlla rekk moo fi mën a jëlee corona bi du pexe sabab ngay def rek del sol sa masque del def li tubaab yi li li borom xam-xam yi docteur yi wax waaye bul jàpp ne loolu kese moo la ci mën a génne yàlla mën na cee def sabab la waaye nag yàlla mën nga def loolu ba pare mu def leneen yonent bi daana ñaan ba pare dem ci guerre ñu gaañ ñu gañe leen kooku yàlla ndogalu yàlla la bu ko defee ñu wax leen waxtu julli yi dañu wax ne bu dee tusibaar bi soppeekuwul seen Senclic yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw activé notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jaa ngeen jëf